alaykum internet yi Football TV ñu naa leen bu baax am mbégte loolu ñëw tey waxtaan ak yéen surtout ñi xamante ne live trois live de 1 heure de temps benn bi de 1 heure de 25 minutes ay questions ma tontu leen man tamit euh, amal na ma njëriñ parce que li ngeen bindoo dama siy jëlee njëriñ dama siy jëlee xam-xam plutôt donc dama leen remercier par rapport à ça mais dafa am ñoo xam ne ma contacté ñu tardé nañ foog mu jeexal ñu live donc suba incha allah di leen def live tey nag bu fekkee temps bi may nañ ko donc à partir de 23h que quelque chose comme ça mën nañ de 23h minuit vu que dañu war a waxtaanee si liste bi ak fin mercato bi xamante ne voilà suñu yenn gaynde yi amagul club donc loolu yëpp dinañ ko waxtaanee mbokk yi donc euh, liste bi tey dama si ñëwaat wax mais bu may wax dama leen wax ne dafa am ñaari yu bees donc euh, ak euh, kenn ko xamante ne mooy def retouram wala ñaar ñoo xam ne ñoo def retouram donc da ngeen si ànd ba mu jeex ngeen xam ni ñuy wax waxal. donc mbokk yi donc dañu dem secteur par secteur au poste de gardien bi c'est très important ñu wax ko euh, donc ñëpp xam nañ ne euh, ñetti gardien yi Edouard Mendy la Seny Timothy ak Mory Diop ñi ñooy gardien yu équipe nationale du Sénégal mais man jàpp naa ne Aliou Cissé cette fois ci dafa war a bàyyi Mory concentré wu si mercato bi mu woo kii di Yehvan bi xamante ne démb rek saa nañu match contre Marseille def na fa ay arrêt yu am solo

Molly Diop mu ne ko concentré wu sa club Yvan Diouf aussi ma tel ko gëmloo Sénégal nekk d'ici 3 4 ans 5 ans mën nga nekk le gardien numéro 1 vu que ñi fi nekk que ça soit Mori que ça soit Seny donc ak Edouard ñoo la mag fuuf donc si côté boobu mën nga ko parce que bu nekkee troisième gardien yaa xalul kenn dara franchement Edouard Mendy mooy numéro 1 Dieng moo fa nekk moom mu ñëw nekk mais na teel a dugg si groupe bi ñu teel ko gëmloo Sénégal gis nga boo demee fu mel ni France Rabio euh, mën nañu wax ne titulaire la si équipe de France cadre la pour euh, donc kii di Didier Deschamps mais dañu wax ne liste bi xam war na génn jeudi bi du si bokk ñu ne lan moo tax du mu concentré la ñu ba joueur bi jotul sax euh, dem Galatasaray finalement dafa demaat retour du côté de Leinster ñu koy ban xam nga intéressant donc kii di Mory pour man mën na dem concentré c'est parce que ayul de après mën nañu koo waaj mais nañu ko bàyyi mu concentré wu Nantes la war dem mu dem Nantes ñooñu wax Lafond day def Ajax mu dem Nantes ñu bàyyi loolu mu concentré wu parce que ñetti ñetti mois yi du ñu joué mois mois mois le septembre dañu football mois d' octobre dañu joué novembre dañu jouer pour moi à la place d'Aliou Cissé c' le bon moment pour convoquer kii di Yehvan Diouf mu nekk le troisième gardien parce que récemment rek wax na ne moom dafa bëgg a joué

am na ay défenseurs Arouna Sangata yi fi keneen ak keneen donc man pour man Aliou Cissé si si liste bii nii bu fekkee am na koo xamante ne mën na nekk joueur bu bees sur le secteur défensif là c' est plutôt El Hadj Malick Diouf mu bokk si race Sénégal yi bokk si Golden Boy Golden Boy nag mooy Ballon d'Or xale yi noonu mën nañu ko tuddee noonu xam moom la ay joueurs yu bëri jël ay Pedri keneen ak keneen euh, Anthony Martial et tout mu bokk si race sénégalais yi bokk si 100 joueurs yi ñu tànn moom la keneen bii national la. donc moom moo juddoo fii ci réew mi fi Médina te bokk ci 100 joueurs yooyu si Golden Boy donc mu am ay capacités yu intéressant depuis le début de la saison c'est dugal na bi joxe na passe décisif muy performer même en Premier League des champions même si instant yi lii daf leen dóor euh, deux heures à l'aller donc Slavia Prague la nekk moom laa gis ne moo mën a ñëw nekk un renfort ba pare dem épaulé kii di euh, Ismaël Diop bi xam mooy titulaire indiscutable au poste de latéral gauche on sait que Aliou Cissé Michel Ngor Faye la fa mais man souvent damay bëgg ay joueurs yu xamante ne loolu seen poste carrément la leen teg certes mën na ko jouer mais je préfère mille fois avoir un joueur bu xam ne c'est que offensivement parlant li mu apporté poste la lu mu bëgg a dem na sax ba ne moom. défense à 3 ça la gën a bëgg ci ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre bu xamante ne offensivement parlant les apporter mais le reste c'est la même chose Abdoulaye Seck Abdou Diallo Kalidou Koulibaly voilà c'est ces jours là ñoom ñoo ñoo ñëwaat ah xam bu fekkee amna ay jeunes yuy xees sax c'est Abdoulaye Diakhaté Ndiaye la Sangata la ak Seydi Sano mais sinon la défense c'est la même chose au poste de latéral droit aussi tamit euh, nañ ci dem mo wax ki ma japp né waaw mun noonu ko moom moo nar ñëw nous ni ko donc au poste de l'étral gauche daal la laa jàpp ne lay on a beaucoup de joueurs y a Eric Boca Junior bi nekk du côté de euh, du côté de Stock City championship de division Angleterre am la possibilité de jouer centre Afrique France avec Sénégal mu tànn Sénégal donc kooku euh, juruma ñu koy négliger c'est un bon boy mais li ma à 80 pour cent jàpp naa du El Hadji Malick Diouf ku dina bokk si liste de di ñëw nii àjjuma léegi défenseurs yi gis ngeen wax naa leen si wax Malick

tout le temps je me pose la question c'est quoi le problème de est ce que ñun niveau Bouniakan, ñu yaakaar ne est ce que yegg na fa réellement on se pose question boobu noonu maintenant je pense que am nañu si lu leer au début début saison bi dugal na bi passe na di match amical était décisif pour moi, bu ñu respecté hiérarchie bi moo war parce que euh, privilège de benn Habib Diarra di ko jouer le poste a nañu limite franchement li nga war a am carrément doo ko am a ko mu dem xeexal ci milieu terrain ñoom Pape Gueye ñoom nga teg un vrai latéral moderne am na ku ne moom Mohamed euh, fan yi dañuy gis ne Noah day joué ailier mu ne ne ailier lañ ko formé du côté de Bruges c'est normal mais c'est un gars bu xamante ne dans ce système à trois défenseurs mu joué piston dinañ ko mën a épauler ay du Koulibaly mën ñu ngi fak ñeneen pour mën mën na si jouer sans problème et Sénégal fii la plupart du temps bu ñu joué équipe ñuy ñuy téye bal bi xam nga donc pour man non waa moo war a ñëw donte yaa Mamadou Sané yaa Alfred Sarr Diomkou yaa yaa de latéral yu xamante ne fi mais man ak Ilaay Camara bi xamante ne gis ngeen ne man de préférence xam ngeen ne man moom laa gën a bëgg mu jouer par rapport ak début de saison de l' année dernière mais moom aussi tardivement la am club standard de Liège démb rek euh, d'ailleurs sax joué na donc moom Ilaay Camara démb joué na mais de actuellement euh, li ma jàpp ne Aliou vous faites am lu lu bees wala wara nek c'est plus au poste de latéral droit c'est plutôt non Fadiga c'est mieux que Formose bi fay tek xamante ak accès c'est mieux que Abib Diarra du du du c'est mieux donc on a d'autres autres droit comme ni ñu limé comme ilay Camara aussi ça va être hyper intéressant pour notre coach à au niveau du milieu de terrain milieu de terrain aussi de bon euh, bu fekkee am na ku fa mën a bees on peut dire que c'est est Mamadou Lamine Camara parce que la dernière fois Aliou Cissé daf ko convoqué mais finalement dafa am blessure mu nekk fii championnat Maroc euh, équipe bi ñuy wax Berkane gis ngeen ne fan yii sax ñoo ngi naan Montpellier daf ko bëgg a jënd mais jàpp naa ne sinon c' est le même les mêmes têtes nga fay gis Pape Matar Nampalys Pape Gueye Pathé Ciss euh, nu la ko mën a Lamine Camara John Lopy c' les mêmes têtes on va voir nag ndax dina fa changé dara milieu terrain bi mais man je pense pas que dina si dina si yokk ku bees. xam nga donc xanaa mu wàññi mu wàññi mais pas mu yokk gëwuma que am que xam naa ne joueurs yi ngeen laaj xam naa ne seen bëgg gis xam naa ne bëgg ngeen gis Boubacar Soumaré xam naa ne bëgg gis Cheikh Niass y a tous ces éléments yoo xamante ne yéen a ngi ma koy laaj tout le temps mais ni ma xamee Aliou Cissé ak ni ma gisee mbir yi ni muy doxee à part Mamadou Lamine Camara bu fu mënoon ñëw nekk ku bees le reste ça va pas changer donc nañ dem si attaque bi buñ ñu duggee si attaque bi euh, donc à part Boulaye Dia bi xamante ne day defaat combat am du côté de l'équipe nationale du Sénégal li ko éloigné si si si équipe nationale bokkoon na ay blessures et tout donc euh, moom dina defaat combat am moom day defaat rupture c'est un titulaire daal di si c'est un cadre daal donc da ngay convaincre. maintenant yéen ñi ngeen may laaj est-ce que mën nañ leen convaincre ku su ma ne Assane Diao góobu na Aliou Cissé dina si jëm dara euh, booy Ibrahima Mbaye dinaa si def vidéo léegi ci kanam ngeen xam am naa si lu bees duñ ñu ma wax lu ma si informé bi nekk du côté de Paris Saint-Germain donc à part. Boulaye Dia bi nga xam ne dina def comme bagam les mêmes têtes ñoo fi nekk Sadio Mané Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye xam donc Habib Diallo mu ngi soog a tudd club nii Habib Diallo xam nga Serif Ndiaye laa xamul entre Serif Ndiaye Abdoulaye Kala siy koobe ou bien ñoom ñaar lu leen convoqué euh, Sabaly def comme bagam mu jeex on n'a pas de plus day mat 26 jours. donc ñi ngeen may laaj nag xam naa ne ñaar ñii la surtout Assane Diop ñi ma koy laaj bëri na lool Assane Diop bi nekk du côté de euh, Betis Séville nekk un joueur boo xamante ne man percutant na man def naa vidéo na ñu dañu manqué ay joueurs de côté percutant ay doublure de Aliou loolu wax naa ko et on a beaucoup de joueurs yu xamante war nañu mën a ñëw foofu ñun tamit li ñu bëgg mooy ñu performer seen club Seck Mara bu ñu soog am club mënoon na Seck dañ ko war a convaincre a scandale

voilà wax lañ ko aussi tamit wax leen ne mën ngeen ñu doole si yeneen plateforme yi ñu si mel ni Instagram ak TikTok boo leen tapee seen football TV incha allah dañuy gis suñu logo bi wax leen ne maillot mu disponible ak lépp lu jëm si wàllum sport ballon original donc maillot club maillot sélection mën ngeen ko am au 77 352 31 01 mbokk yi nag jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur seen football TV.